te euh, politique bi rawatina ak parti démocratique sénégalais Mortala ngay bi di déposé benn commission d'enquête parlementaire ñu ne euh, ci euh, mu it mu aju ci ay juge yu nekk fële ci conseil constitutionnel ginnaaw bureau bi président commission yi ñoom ñoo ko nar a xool lan la ñu nar a xaarandi ci lu ni mel te niñ koy fàttalikoo dafa mel ni guléet la ci wàllum politique fii ci réew mi. waaw assemblée nationale tey dafa mel ni en mode fast track la nar a pour un peu xool. càmbar euh, lii di euh, demande de mise en place d'une commission euh, d'enquête parlementaire boo xam ni député PDS yi ñoom ñoo ko laaj pour ñu jéem a seet lu tax ñu invalider la candidature de Karim Wade tey sax assemblée assemblée nationale day réunir la conférence des présidents dañuy daje pour un peu jëmmal demande boobu ak lan lañ ci xalaat. mais euh, d' abord je pense c' important nit ñi xam lan mooy commission d' enquête parlementaire commission d' enquête parlementaire souvent bu ñu koy wax euh, benn mission la pour recueillir des éléments d' information soit ay éléments d' information soit des faits déterminés euh, sur la gestion des services publics maanaam euh, ay mbiru élément d'information la benn commission d'enquête di saytu pour jéem a seet lan la ñu mën a déterminer comme élément ak lan la ñu service public bi ban responsabilité la ci am muy loo xam ni nag quand même gulet quand ñu sentu ko ñu gis ko au Sénégal par rapport un peu à l'invalidation d'une candidature euh, notamment celle de Karim Wade mais jotoon na fi am ay commission d'enquête yoo xam ni euh, parlementaire yoo xam ni jotoon nañ ko fi def wala ñu saytu ko pour def ko mais je pense boo seetee bi ci gën a ràññeeku fan yële ñu génn mooy euh, commission d'enquête parlementaire bu ñu defoon sur euh, l'achat d'armes de 45 milliards opposition bi déposé woon ko waaye finalement majorité bi da ko dégagé woon bëggoon nañu également def euh, Sidiki Kaba ba mu nekkee ministre des forces armées également defoon na fi mais du woon enquête parlementaire mais commission d'enquête impartiale pour déterminer la mort euh, les treize morts lors des événements de mars 2021 commission boobu aussi naax saay na bëri na ay commission d'enquête yoo xam ni parlementaire ou pas yoo xam ni Sénégal jëmmaloon nañ ko pour wut def la lumière sur des événements yu fi jotoon am mais dafa mel ni furaas la mujjee bon commission d'enquête parlementaire bi nag dafa mel ni am na des dessous politique le dessous politique sax moo ci ëpp ndax Karim Wade la ñu bëggoon euh, càmbar un peu lu tax ñu invalidé candidature am ñu ngi ci wax sax affaire corruption bon man nag li ma ci ñaan mooy ñu bañ a hmm, disons euh, def ay euh, disons ay dénigrement ci des éléments yoo xam ni di personnaliser Euh, débat bi par rapport ak euh, des membre du conseil constitutionnel ñu leen di joxoñ baaraam di wax naan di leen singali di leen joxoñ baaraam naan ils sont corrompus yooyu je pense euh, nañu bàyyi une commission d'enquête responsable mu sutiyee wu hmm. et puis lu ci am ñu seet fan lay mujje hmm, Alaaji Malick lan mooy ci sa gis-gis li nga xamante ni daanaka nangu nañ ko boo moytul kon ci commission d'enquête parlementaire lañ jëm waaw xam nga commission d'enquête parlementaire soxna naata Euh, du du lu bees ci dunduk assemblée nationale mais li bees tey mooy ñu taxawal commission d'enquête parlementaire boo nga xamante ni nii ñi ko sàkku nekkuñu ci biir assemblée nationale bi donc c'est un parti politique moom moo bind assemblée nationale pour mu càmbar euh, taxawal commission d'enquête parlementaire en général dans le fonctionnement de l'assemblée nationale. Euh, ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci hémicycle bi ñoom ñooy def demande ci fànn boobu pour ñu def commission d'enquête parlementaire euh, commission ya fa toog toog saytu ko après la conférence des des des présidents je crois soog a réunir pour mën a def lu ni mel te bëri na ni ko moor waxee ay demande d'enquête de commission d'enquête parlementaire yu nga xam ne ay député yu nekk ci biir assemblée nationale bi def nañ ko te mujjul fenn euh, maintenant. les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours li nga xam ne Conseil constitutionnel atte na ko amatul beneen recours buñ ci mën a def ba ñu dellu si loolu leer na kon tey nañu takk jaaj yi te waajal élection yi te xam ne mbiri report moom euh, moom loolu weesu nañ ko beneen bi nga xam ne moom ma ci gêné soxna naata mhm. mooy conseil constitutionnel dafa nekk juridiction bu mag bu nga xam ne tey dañ ko war a dooleel mais waruñu ko fragiliser. te dañu jëm ci lu nga xamante ne ni tey fa muy fa mu jëm en fait dafay nësaxal wala mu indi sax ay conflits entre entre entre euh, ay institutions. parce que l'institution qui est le conseil par euh, le conseil constitutionnel. tey dafa nekk lu nga xam ne euh, cëslaay la ci démocratie cëslaay la. ci wàllu justice kon assemblée nationale jéem ko fragiliser loolu dafay xaw a doy waar maintenant attaquer les décisions du conseil constitutionnel loolu du guléet c'est pas la première fois que ay candidats di ŋàññi conseil constitutionnel maître Abdoulaye Wade def na ko fi defate ko fi defati ko fi Macky def na ko fi defati ko fi mais loolu eggul woon ba ci taxawal ay commission d'enquête parlementaire c'était purement des des des des des des cris de cœur d'opposants pour dénoncer peut-être une injustice qu'il aurait subie mais musuñu egg ci di taxawal ay commission d'enquête parlementaire maintenant li ci xaw a tey xel mooy li Mor di wax. dafa mel ni dafa am ay soubassement politique ci biir yëf yi ndax tey boo xoolee maanaam gaaw gi ñu ko gaawal muy mode fast track bi ñu def pour pour jéem a taxawal lu ni mel ak i tamit diw bër gi nga xam ne waa APR ak waa euh, nu mu tuddati euh, la mouvance présidentielle diw nañ ko bër PDS. loolu boo ko xoolee fi mu nekk nii dafa mel ni am na opération de charme wala boog opération bu nga xam ne ñu ngi koy mëne pour que même bu ñu invalider c'est ce qui est déjà acté la candidature de Karim Wade que PDS ak la mouvance présidentielle ak APR maanaam retrouver waat autour de ces élections et il ne faut pas écarter cette hypothèse là parce que tey ku ne xam na ni PDS c'est une grande machine électorale c'est une puissante machine politique te avoir am PDS ci euh, maanaam coalition présidentielle mu gunge leen ci élection yi loolu daf leen di gën a dooleel moo tax fi mu nekk ni jàpp naa ni diw bi ñu dëw wër gars yi def ko kii ba pare mu mel ni am na ay instruction sax yu ñu jox mouvance présidentielle bi ñi nga xam ne ñoo nekk fële ca euh, ca assemblée nationale pour ñu gunge PDS ci lii mu def loolu je pense que bu ñu ko toppee ba ca biir hmm. am na lu ñu lu ñuy ruumandaat hmm, mais en tout état de cause dàq élection hmm. mënu fee am nañu dem voté ji. Hmm. conseil constitutionnel décision yi mu jël ay la yéwén amul benn institution bu ko féete kaw bu ko mën a kase les décisions ne sont susceptibles d'aucune Euh, voie de recours voie de recours. Hmm, hmm. voilà foofu laay jeexale euh, tàmbale sax fi maa lay jeexalee euh, donc euh, dàqub élection bi wala ñëwaat ci li nga xamante ne conseil constitutionnel décidé na ko njiitu réew mi àdduna ci bi mu doon dalal ñi nga xamante ne mooy ñiy woowee seen bopp les candidats spoliés fukk ak ñaar yi demoon en tout cas. muy loo xamante ne aussi dañuy ñëwaat rek ci li nga xamante ne mooy taxawaay bi assemblée nationale war a am fii ci réew mi. moi je pense que quoi que l'on puisse dire amul benn acte politique boo xamante ne euh, c'est gratuit amul amul donc. Euh, am na loo xamante ne xëy na ñoo ko ci sentu mais li ñu mën a jàpp mooy euh, li nga xamante ne moo yëkkati conseil kii parlementaire mooy recueillir des informations information yi yi ñuy wër xëy na buñ ko amee ils vont prendre une décision mais tout toute façon li ci gën a am solo tey mooy fexe bi ñi nga xamante ne ñoo seq kuréel boobu am taxawaay boo xamante ne dafay gën a jëmal suñu euh, démocratie parce que tamit on n'a pas envie de de régresser hmm. te Sénégal quoi que l'on puisse dire à chaque fois dañuy citer comme une référence euh, en Afrique donc euh, yaakaar hmm. naa lu am solo la hmm. et puis dina permettre ñi nga xamante ne ñooy député ñuy composé euh, commission bi en tout cas ñu gën a nekk seen rôle te loolu rien que ça c'est important. Mm-hmm. Euh, Chérif ban intérêt la mouvance présidentielle bi am ci di gunge parti démocratique sénégalais ci lii. Ah, moo tax man lii dama jàpp ni c'est une motion de censure qui ne dit pas son nom. parce que boo liiree par exemple li nga xamante ni mooy euh, communiqué bi secrétaire exécutif national bu APR génn démb. Mm-hmm. ce qui veut dire que man man conclusion bi ma mooy amadu Ba n'a plus la confiance de sa majorité même parlementaire. parce que ñoom nee nañ le secrétariat exécutif national de l'APR demande aux députés de Benno Bokk Yakaar de rester attentifs à l'initiative du PDS pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire aux fins d'être édifiée sur la non-validation de la candidature de leur leader. alors que bu ngeen xoolee euh, bi Thierno Alassane Sall déposé recours bi ca conseil constitutionnel déjà Karim Wade avec sorti benn tweet daal dina Thierno Alassane Sall agi pour le compte de Amadou Ba euh, du très peu courageux la waxoon mm-hmm. nga xamante ne affaire Kouba loolu boobu décision définitive bi génnagul ñu dem ca le 20 conseil constitutionnel daal di génn la liste définitive Karim Wade ak waa PDS ak sa coalition génn beneen communiqué joxañ baaraamu tuuma ay membres yu conseil constitutionnel ne danoo nekk en connivence avec benn candidat loolu lañ doon wax ñu tudd candidat bi aussi muy Amadou Ba. tudd nañ mhm. sax yeneen i député yoo xamante ni ñi ngi ci biir. ba nekkoon kon nañ ubbi euh, commission d' enquête parlementaire. Mhm. majorité bi nga xamante ni Amadou Ba mooy seen candidat. ñu ne kon nan ànd ak waa PDS ngir mu leeral ko loolu koy kon man pour man il ne vise pas directement ñi nga xamante ni ñoom ñooy les membres du conseil concerné mais plutôt le candidat et le premier ministre loolooy première conséquence bi d'abord moo tax bu ngeen gisee procédure bi nii mu gaawee nii on va vers une crise déjà politique boo xamante ni noonu lañ koo dund parce que y a un candidat boo xamante ak un premier ministre boo xamante ni dafa am beneen euh, candidat bu ko jiiñoon ne

Euh, def beneen interprétation ba valider euh, candidature bu Karim waaw conséquence bi mooy parce que man gëmuma ni euh, ñu mën mën a dellusiwaat ci li ah. mm. ci yoo xamante ni xëy na dañ leen a tudd ci wàllu guerre que ñi ngi sax encore ne candidat bi dafay manipuler li nga xamante ni mooy élection bi à travers li jëm ci wàllu kii boobu ñu xamante nag bu nemee ba ci plénière bi dundoon nañ ko fi sax li nga xamante mooy jamono Idrissa Seck bañ fi wax ay dualité au sommet sommet loolu lañ fi mm. commencé waat gisaat parce que y a un problème président donc son premier ministre c'est ak conclusion boo xamante déjà mën ko fi tiré comme ni xamee woon en aussi diggante ah, moom mooy Senghor ci ay crise yoo xamante jëm na ci maintenant am na beneen crise boo xamante ne institutionnelle maanaam une institution mooy l'Assemblée nationale qui incarne le pouvoir législatif ak euh, le conseil constitutionnel bi nga xamante aussi day incarner donc quand même écouter li nga xamante ni moom mooy Waalo mais quand même lii victoire la boo xamante ni bu Karim Wade mën am en tout cas je pense que le PDS euh, dem jàppale leen je pense que li ñu ci jublu mooy et là mën am sax conséquence sur quand même le déroulement des instituts de l'élection présidentielle vu le rôle important bi nga xamante ni conseil constitutionnel moo koy jouer parce que ñooy recevoir candidature yi ñoo leen déclarer bu ñu demee ñooy proclamer résultat yi. ñooy recevoir le serment aussi du président élu et donc s'il porte un discrédit sur une telle institution on va vers un chaos au Sénégal. musiba mm, mm, mm, merci euh, ci wàllum politique daanaka la ñuy des ba léegi ci un jour au Sénégal un jour dans le monde. Parti démocratique sénégalais bi ñu doon tudd léegi ci. Euh,